ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay yéen journalistes yi di leen massawu coono ndax defe naa ne coono bi ñoo ko ñoo ko bokk depuis deux semaines euh, ni nu ko xamee dimanche euh, incha allah ci la sénégalais yi ak sénégalaises yi ah, di dem woteel euh, maanaam seen i élu muy seen i maire wala seeni i seen i maire commune wala seen i maire ville di fal aussi seen seen i président de conseil Euh, départementaux ni ngeen ko xamee Sénégal am na cinq cent cinquante 552 communes am na 45 conseils am na euh, cinq villes kon dimanche incha allah euh, ci la ñuy jublu ci wateel ñooñu Sénégal nag dañu ko ràññee xam ko kañ ko ci qualité démocratie muy dëkk woo xam ne wii yàgg nañu fee fal bu yàggul rek la ñu falaat président Macky Sall ci jàmm ak ci salaam ñu bëgg nag te ja yaakaar nañ ne loolooy am incha allah. Euh, ne dinañu jublu ci élection yi dimanche euh, ci jàmm rek ay xew kooku it euh, am na solo ñu wax ko suñu responsable yi suñu militants yi waaye wax ko sénégalais yëpp bu ko defee ñu xëy dimanche dem wote ji ni ñu ko daan defee voilà bu nu paree ña war a falu falu Sénégal aussi voilà ñu saluer waat maanaam qualité démocratie am kooku am na ci solo ndax li ñu gis nag aussi ci sunu taxawaay Euh, muy ñi nga xam ne moom lañ def ci liste yi ak ñi bokkul ci liste yi ñoom ñëpp ànd doon benn euh, ni nu ko waxee woon ca début campagne ba pour que sunu ay responsable gagné euh, te am nañu ci yaakaar bu baax a baax xeebuñu kenn nag du xeeba du xeebeel du arrogance waaye nag loolu lan ñu suñu taxawaay may incha allah jàmm jooju nag am nañu yaakaar bu baax a baax a baax ne loolay am leneen du am dinañu jël aussi suñuy matuwaay pour que vraiment suñu ay militants dem Euh, voté ji ndax li ñuy dégg nag aussi mooy ñoo xam ne ñi xëy na jàpp nañ ne euh, du ci urne yi la ñuy gañee waaye ci mbedd mi xëy na la ñu mën a gañee loolu moom mënta nekk loolu moom mënta nekk te du am nañu ko daan defee di dem wote ji ku ne wote ji ñibbi incha allahu rabbi loolu mooy amaat dimanche bu soobee yàlla ndax matukaay yëpp aussi dinañu ko jël euh, ba nit ñi aussi mën a wote ji ndax nag kenn mënta impressionné kenn ndax fii ñi fi toog ñu ci bëri yàgg nañ ci politique defe naa ne waaw bu dee voilà yenn façon yi jaar nañ ci yàgg na kon amul lu kenn di am lu ñu lay impressionné lu ñuy impressionné fii loolu munoo fee nekk dañuy dalal xel yi rek xelu responsable yi xelu militant yi xelu sénégalais yi aussi bu ko defee ñu dem exercer démocratiquement seen droit dem voté ji dal di ñibbiwaat kooku nag aussi am na solo ci réew mu mel ni Sénégal ni ma ko waxee ndax dañu ñu kañ ci sunu démocratie ndax gis nañ réew yu bari yoo xam ne yii bu élection jotee ñëpp jaaxle du Sénégal am na quand même quelques incidents par ici par la ñu ngi koy regretter aussi ci ñi ko suscité ñu ci ñi ko suscité ñun en tant que Benno Bokk Yaakaar ndigal bi ñu jot jotoon ci président de la république président Macky Sall mooy dem leen defi seen activité ci fulla ak fayda mais ci jàmm te noonu la ñu ko doxale euh, noonu lañ koy continuer doxale ak ci fulla ak ci fayda aussi euh, bu ko defee vraiment bu ku nekk toppee charte yi nga xam ne loolu la code électoral wax loolu la démocratie wax incha allah dimanche jàmm rek ay xew bu soobee yàlla ñu dem wote ji ah amaat nag victoire amaat ndam ndax ñu fàttali nag ne 2012 euh, ba léegi Benno Bokk Yaakaar élection bu mu dem moo ko gagné te am nañ amaat nañ yaakaar ci lii ni ma ko waxee du xeebeelu kenn du arrogance waaye taxawaay boo xam ne bii aussi suñuy responsable ak ñun ñi leen jàppale euh, loolu la ñu wane ci terrain bi kon looloo doon tey euh, vraiment suñu daje bi muy ni ma ko waxee vraiment pour kañ suñuy candidat pour féliciter leen yéen it aussi ñu delloo leen njukkal yéen journalistes yi ndax lu xew ci réew mi aussi yéen a koy jot li ñëpp message yi nga xam ne joxe nañ ko nag muy ay message yoo xam ne euh, jàmm ak salaam ak dal ak sérénité ah ñu leen di encourager aussi message yooyu ngeen euh, tasaare ko wasaare ko ci réew mi bu ko defee xale yi aussi ñu kañ leen en particulier ñu ñu ñu ñu ñu wax ak ñoom bu baax a baax xam ne démocratie euh, li mu laaj mooy dem wote ji ñibbi bañ a topp politiciens yi nga xam ne dañ leen di dugal ci fitna te bu fitna amee duñ leen gisaat duñ leen déggaat borom kër yi aussi vraiment ñu waxtaan ak seen njaboot ba nga xam ne bi kenn du ci loru euh, kenn du ci gaañu le lendemain le lundi vraiment ñu bokkaat doon benn ndax ñoo bokk quartier yi ñoo bokk koñ yi ñoo bokk marché yi loolu moo doon message bi ñuy joxe wax sénégalais yi ak électeurs yi ne incha allah jàmm rek ay am ah wax suñuy responsable aussi seen taxawaay bi nga xam ne dinañu ko am ba bu soobee yàlla euh, vraiment suñu victoire doon victoire bu euh, amul benn werante ndax nag aussi looloo ci nekk ñun ñoo nekk la majorité présidentielle dañu am responsabilité voilà ndax kenn mënuñoo aussi euh, vraiment xoxatal mais dañu am responsabilité pour que les élections euh, am ci jàmm ak ci salaam donc loolu moo doon vraiment euh, suñu thème. nous avons une liste à Ziguinchor elle est dirigée par notre camarade Benoît Sambou euh, nous sommes sans équivoque là-dessus il est de beno nous soutenons Benno Bokk Yaakaar ça y a pas d'équivoque là-dessus c'est ce que nous pouvons vous dire maintenant l'autre question vous la poserez à l'intéressé lui-même je crois que, que celle une position de principe. C'est notre camarade, nous le soutenons, nous souhaitons sa victoire euh, et nous aussi nos militants à voter pour lui. Euh, ñun amuñu ñaari ñaari kaddu wala ñett wala ñeent noonu la ko gisee ngeen jàppee ko noon peut-être la question qui m'a été directement posée mooy euh, gañe bi ci lan laa ko wékk mais def naa am na lu ci Aliou Sall wax sànq président Macky Sall bi muy tàmbali 2012 20 milliards la dugal ci collectivité territoriale yi. suñu jonn yàlla yi tey mu ngi dugal na ci 60 milliards wax na ko loolu ay ndox la électricité ay route la et cetera c'est-à-dire bilan moo tax ñuy wax ne war nañoo mën a gañ loolu di benn ñaareel bi muy ndakaaru gii ñu ne dem naa ne ñëpp wax nañu ko mooy da ngeen di comparer profil Abdoulaye Diouf Sarr li ñu fàtte wax mooy succès bi mu indi ci xeexu Covid mais njàmbaar jooju bu ko indee ci mairie ndakaar ndakaar xar kanamam soppeeku. il a été quand même comme un des meilleurs ou le meilleur ministre de la santé d'Afrique parce ses pairs am na expertise am na xam-xam mën na mën na ku mën la dakaar dañu koy jox ku ku mën dañu naan fas doo ko jox sa xarit fas da koy jox xaritam li ñu jàpp nag ñun mooy Dakar xaritam Diouf Sarr am na jàmm am na salaam am na yar am na aussi mën-mën ak xam-xam wane ko nag aussi ci secteur bi nga xam ne moom la ñu ko mujj jox muy santé ci wàllu ko bi loolu ci loolu la ñu la ñu wékk vraiment suñu optimisme xeebuñu kenn wax nañ ko nag parce que nag aussi dañuy am sens su responsabilité voilà xeebuñu kenn waaye nag suñu taxawaay xam nañu ko euh, suñu man mën it xam nañu ko suñu euh, résultat it xam nañu ko ci loolu lañu ko fondé di appeler aussi suñuy responsable suñuy militant mais surtout sénégalais yi ñu ràññee parce que élection nag aussi da ngay ràññee am na jot na pour que ñuy jox suñu collectivité territoriale yi ñi nga xam ne ñoo ko mën a gérer pour sénégalais yi gis ci seen bopp bu dee ndakaaru aussi wax nañu ko capitale Afrique de voilà de l'AOF la woon première université du Sénégal fii la woon booy seet bëri na président yoo xam ne fii la ñu jàngee et cetera c'est une grande donc il faut que vraiment cette grandeur de Dakar lui soit restituée à Dakar ñu am à sa tête koo xam ne kii vraiment il peut être inclusif il peut être rassurant parce que jamono ji dafa métti li ñu soxla mooy des maires qui nous rassurent pas ay ñoo xam ne fitna la ñu bëgg a gérer aussi collectivité yi loolu aussi am na solo te yaakaar nañu sur la base du bilan qui ay été fait euh, que euh, vraiment dinañu ko dinañu ko dina dinañu ci am euh, ndam ju yaatoo yaatu ni ko ministre Seydou Gueye waxee amuñu ci sikki sàkka waaye nag aussi élection da nga cay dem voilà du ñu du ñu du ñu du ñu toog rek ne gagné nañu du ñu def loolu dañuy mobiliser jusqu'au dernier moment vraiment no militants nos responsables et surtout les sénégalais parce que ñooy ëpp ñi ci ñuy wote vraiment ak des arguments euh, voilà des idées des propositions et pas de la violence c'est la violence je crois que ministre Amadou Ba wax na ko bu leer voilà état dina jël responsabilité mais ñun dinañ jël suñu responsabilité aussi aar suñuy responsable ak sympathisants yi nga xam ne bëgg nañoo dem ci élection waaye am naa ci yaakaar ne lii voilà wax ju bari la rek voilà pour essayer de créer la confusion mais ça n'impressionne personne mm. ça il faut que ça soit clairement dit ça n'impressionne personne lii ñun fu ñu fu ñu ne woon ba ñëw yegg si fii 2012 mm. mais ñi ñu jàkkaarloo woon ça n'avait rien à avec ça mais on est arrivé là on a bon a nag un sens de la responsabilité du ñun ñooy fekki di dóor qui que ce soit waaye nag aussi que chacun se le tienne pour dit voilà allons-y voilà dans la sérénité bari nañu muy arrangé ci camp boobu ñu dem ci sérénité wax ay résultats mu jeex def naa ne euh, mieux vaut y comme ça mais on rassure les sénégalais les sénégalais soxna yi ñu xam ne mën nañoo xëy dem wate ji ñëwaat ñu ko Seydou waxee teel a wate ji teel a gagné teel a féete aussi voilà donc. Euh, waaw maa leen di sant bu baax di leen di leen gërëm di leen félicité ndax euh, sunu liggéey bi ñuy def yéen koy fësal. mais jàpp nañ ni tey jii mën nañu am yaakaar ci benn bokk yaakaar ci biir Sénégal yëpp euh, ndax benn bokk yaakaar ni ñu ko waxee léegi euh, bu ñu àndee doon benn tey jii ñu ñooy majorité ci Sénégal yàlla def na aussi campagne bi gis nañ ci jubo boo xamante ni yokk na lool maintenant bu ñuy ñëwaat ci Dakar li tax ñu ciy wax mooy collectivité local bi nga xam ni quand même moom mooy capitalu Sénégal am lu mu représenté sur le plan historique te collectivité local boobu tey jii dañoo bëgg ñun ñu jël ko maanaam ñun benn bokk yaakaar yàlla dimbali na nekk am nañu président tànnal nañu candidat boo xamante ni am na expérience am expérience mooy di def dara yàgg ci nga doon mag wala nga doon ndaw mais li muy def xam na ko am nga expertise mooy am nga xam-xam li am solo moom mooy fexe ba programme bi mu am ñu tuddee ko Dakar bu bees te programme boobu. soqee ko ci plan Sénégal émergent bi nga xam ni ci la ñuy tabax le président Macky Sall di tabax réew mi yokk ak accéléré ko ba ñëpp teg ci seen bët depuis léegi daanaka juróom-ñetti at kooku dañ ko ci war dañoo war a fexe ba Abdoulaye Diouf Sarr bu ci ak équipe bi mu àndal parce que du moom kenn équipe bi mu àndal au niveau de la ville ñu mën ko gañe am na ci nag yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndax gis nañu nit ñi ñi ëpp ci ñoom nangu nañu programme dakaar bu bees mais ginnaaw ab Abdoulaye Diouf saar am nañu 19 communes ndax dañoo nekk ci acte 3 acte 3 li ci président def mooy communes yi daanaka dañoo yem dayoo mën nañu nag bañay am yem doole mais dañoo yem dayoo ñoom ñoo war a bokk lépp donc communes yooyu aussi am nañ ci 19 candidats yoo xam ni ñëpp xam nañ leen ndax seen i bilan ndax seen expérience ñu doon aussi ñoo xamante ni tey bu ñu àndeek lëkkaloog ville bi ak li état bi di def kooku dinañu mën a accélérer li nga xam ni communes yi ak ville bi war nañ ko jariñ askan bi ci loolu la ñu nekk te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ñun benn bokk yaakaar sunu force mooy sunu ñu ànd juboo benn bokk yaakaar au-delà de APR ay parti yu bare gi ci biir et ça c'est important boo xoolee depuis 2012 daanaka ñoom rek ñoo ànd ak lu ci dara daanaka wàññeeku ci ay yeneen force politique ñëw yokku ci kon amuñu sikki sàkk kër dinañu gagné élection yi maintenant élection dafay ànd ak euh, coow mais na doon coowu jàmm ndax nag réew mi ñun ñoo ko bokk ku nekk aussi xam nga sa àq ak xam nga sa yelleef et ça c'est extrêmement important à à à à préciser ñun li ñuy def ci benn bokk yaakaar bu soobee yàlla dinañ fexe ba képp koo xam ne suñu militant nga ñu xam la wala xam nañ ni bëgg nga ñoo jàppale dinañu fexe ba yombala la nga dem vote ji saa c'est important parce que aussi en tant que parti ñun ñoo war a organiser wu à la base dugg ci kër yi seet nit ñi fexe ñu dem vote ji dina dinañu fexe ba ñoo ñëpp dem vote ji ci jàmm ñibbi ci jàmm te li daan am ci réew mi continuer fi am maanaam bu ñu voté ba ci ëllëg sa ñëpp xëy dem liggéey je pense que gis nañ ko ci Sénégal lu yàgg-yàgg loolu nag am na ci loo xam ne ci ru état la ñun en tant que force politique ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan état bi na mu ko doon defee démb ak barki démb mu defee ko noonu amuñu ci aussi sikki sàkk état bi dina ko def mais là on parle en tant que force politique ñoo bëgg état bi aussi assurer suñu sécurité état bi def li nga xam ne mooy mooy waree wareefam ba nga xam ni képp ku bëgg a voté ji nga dem voté ji bu boobaa ci ngoo bu ñu ngoonee bu ñu compté ku gañe gañe mais ñu am nañu yaakaar bilan bi ñu am benn am na ñu yaakaar candidat yi ñu am ak offre programmatique bi ñu def ci fii ci Dakar dinañu gagné collectivité yëpp maanaam ville de Dakar ak les euh, dix-neuf commune sunu candidat ngi ciy liggéey ñun ñëpp ñu ngi ciy liggéey jàppoor bokk ndey bokk baay loolu mooy kàddu yi nga xam ni bëggoon nañ ko fii euh, rotal di leen sant di leen di leen gërëm jërëjëf am na ay question yi fi soulevé bëggoon naa ci rek euh, yokk tuuti wax nañ fi wax waxi complot mais sunu élection ni koy organiser yàgg ko organiser noonu daanaka résultat yi yéen a ñu koy wax ndax ñun mënuñoo nekk fu nekk dana bureau de vote bi ngay voté foofu ngay surveiller mais bu ñu demee ba ngoon ba résultat yi commencé wàcc ku taal sa rajo man nga taal sa télévision wala sax nga xool sa portable bureau de vote bu nekk da nga xam la fa génne ci urne loolu mooy li am solo te Sénégal yàlla dimbali nañu xëy na depuis mille ba tey ci li ñu mën a wax élection mu fi am boo xamante ni contestation yi dina am fu mu yegg maintenant bu ñu nekkee ci langue politique nag ku nekk bu la neexee booy dem ne lii laay lii mooy am wala boo fa jógee bu la arrangé nga ne lii la bu la arrangé lu nga ne lële la mais Sénégal moom c'est un état de droit Sénégal moom élection mën nañ ko 2000 ba tey bu ñu voté dimanche dañuy xëy altine liggéey loolu la ñuy ñaan mu am ren ci loolu lañuy liggéey ci loolu la ñuy dox ñi nga xam ne dañoo gaañu ce sont d'abord des citoyens sénégalais buñ dul sax ay citoyens ay nit lañu nit koo xam ne da nga loru ci lu mu mënti nekk da nga war a am soutien wu état du la yóbbu hôpital wala ñu yóbbu la dispensaire ba ñu laaj ban parti nga bokk wala loo doon dañ la war a faj maintenant ñun en tant que parti ñooñu dinañ leen seet nemmeeku leen jàppale leen ci lu ñu mën ndax bu ñu duggee ci kër vandaliser ko yàq lépp effectivement lu metti la que mu doon nag koo xam ni dafa bokk ci opposition wala dafa bokk ci pouvoir dafa warul ci kenn ñu koy def loolu moo tax ñu koy condamné et incha allah dinañ leen jàppale mais faj bi moom daanaka loolu prérogative puissance publique la ku gaañu rek la yóbbu hôpital boo demee hôpital docteur bi moom yoonam newul ci ban parti nga bokk wala looy def li ko war moom mooy mu mu faj la et heureusement mu demee noonu lu tax ñu war a jàppale Diouf Sarr xam ngeen ni Dakar wax nañ ko waxaat ko Dakar c'est une ville importante loolu la yàlla def mooy capitalu Sénégal dakaaru aussi yàlla dafa def symbole Dakar yàlla dafa def aussi alalu réew mi li ci ëpp mi ngi ci biir Dakar gis nga Aliou wax na ko léegi pour wane pas-pasu président Macky Sall ci décentralisation mooy acte trois premièrement mooy yemale nit ñi c'est extrêmement important parce que bu ngeen di fàttaliku at yu weesu dañuy wax ay communes rural loolu amatul léegi ñëpp a tolloo dayoo. maintenant doole ji amul loolu ay problème de répartition la loolu xëy na palaasam du du du du fii mais li ci ëpp mi ngi ndakaaru ndakaaru mooy sunu vitrine te ndakaaru daa war a jariñ ndakaaru te li ñu gis seetlu ko mooy 2009 ak léegi Dakar nag jariñul Dakar waay que bu nekkee commune collectivité ñuy fay impôt mais du du mbalit du électrification loo fi gis état moo ko def et pourtant Aliou wax na ko léegi transfert yi mi ngi jógee vingt milliards bi fi Macky Sall ñëwee ñaar fukki milliards jëm ci juróom benn fukki milliards mais li ëpp importance mooy bi muy wax léegi président li ko yitteel mooy accélérer construction bi boo demee xool pro budget bi ñuy def ren nga xool programme bi mu ànd ci ñetti at yi gouvernement bi bëgg na def Dakar huit cent et quelques milliards boo jëlee investissement yi parce que li ñuy def ci réew mi mën nga ko séddale par localité loolu moo expliquer chantier yi ngeen di gis un peu partout pour rattraper ce retard infrastructurel mais loolu ki ko war a dénk mooy ku xam la ñuy def ki koy dénk mooy kiy xool li état bi di def mais naa ko complété ndax état mënul defandoo lépp mais li ma bëgg a wax aussi amul commune bu mën a liggéey. amul commune bu mën a def te du état moo lay jox c'est ça aussi la vérité loolu du Macky Sall moo ko fi andi nag. Hmm. foogu mu leer lu fi Macky Sall fekk la kooku ce sont les lois et règlements yàlla dimbali ma nekkoon naa ministre des finances ka fa nekk kay nekk percepteur ministre des finances moo ko fay teg moom mooy encaisser impôts yi moom mooy fay mais articulation bi la moo tax mu baax mooy bu état dee def commune daf cee war a jàpp. comme tey bu ñu nee xëyu ndaw yi ni ko Abdoulaye Diouf saar waxee gouvernement bi dafa ne dinaa ci def nangam cent cinquante milliards at bu nekk mais ab Abdoulaye Diouf Sarr sañ naa ne man fu gouvernement bi defee ci biir Ndakaaru dix milliards wala vingt milliards ay exemple lay joxe man dinaa ci yokk un milliard wala dinaa ci yokk deux milliards bu gouvernement bi créé dix emplois man dinaa créé benn yokk ci wala dinaa créé ñaar yokk ci ban candidat ngeen dégg mu wax mais loolu la Dakar soxla ban daa ngeen dégg mu wax ci wàllu sécurité sinon créer insécurité danañ def nii ku ñu def nii dinañ la dóor dinañ la yàqal ab Abdoulaye Diouf Sarr waxul loolu dafa ne nañu fexe ñun ñëpp ñu aar ñëpp nekk ci jàmm liggéey réew mi mais Abdoulaye Diouf Sarr en tant que maire amul territoire territoire am c'est le territoire de dix-neuf commune comme ni Aliou Sall territoire am nekkee territoire u cinq xaw ma six communes yi nga xam cinq commune yi nga xam ne ñoo nekk Guédiawaye mais li mooy kay nekk maire Ndakaaru muy Abdoulaye Diouf Sarr mën a wax ak maire d' arrondissement bi comme sax bu maire d' arrondissement bi ñëwee Zator bu gañee Mermoz ne man dama bëgg def ay pavé sur cent mètres ou deux cent mètres carrés fa la sama doole toll. Abdoulaye Diouf Sarr ne ko mais man booy defee cent mètres carrés ou deux carré mètres carrés dinaa ci yokkal trois cent mètres carrés wala naa ci yokkal quatre cent mètres muy lu cohérent état bi ne ah man kat am naa programme Promoville Agirout mi ngi def nangam. ñu mën ko yokk bu boobaa Mermoz bu ñu foo soxlaa deux cent mètres carrés ou trois cent mètres carrés bu état bi defee ne bés sangam laa ko bëgg a commencé ville ànd ak état jubóog état ne kon ma dinaa mën a def bës sangam sator ànd ci mais loolu day daal di yomb te loolu njariñu population yi la loolu moo tax ñun ñuy jàppale Ablaye Diouf Sarr am na expérience am na expertise te la muy def mooy li état bi bëgg a def et ça c'est extrêmement important moo tax ñu koy jàppale ci loolu maintenant laaj dañ ma fi léegi aussi ci Moussa Sy a aucun problème vraiment on a des problème à la hauteur de notre poids électoral nous sommes un quartier ou plusieurs quartiers de quatre-vingt-quinze mille habitants unanimité amul fenn wax rek ñëpp d' accord sur ci wàllu politique amul fenn mais li am solo mooy ñu ngi liggéey pour Benno gagné Dakar muy Abdoulaye Diouf Sarr bi jiite liste bi ñu ngi liggéey pour Parcelles Assainies Moussa si gagné parce que moom moo jiite list bi maintenant élection locale c'est très compliqué parce que ay nit ñu dëkk la da nga gis nit ku ñëw xëy na mën naa jege Amadou Ba wala mu jege keneen ne la man duma ko jàppale parce que tout simplement defoon na ma nangam ba sàngam waxoon na ma nangam ce sont de considération yoo xam ne je pense c'est le ni ko tubaab di waxee ça se lave en famille li am solo tey ci ajjuma ji ñu toll jëm ci dimanche bi nañu fexe ba liste Benno Bokk Yaakaar yi gagné un peu partout fépp nag waaw ci 19 communes yi ni ma ko yéenee Abdoulaye euh, Moussa Sy noonu laa ko yéenee Zator yéene ko Cheikh Ba noonu yéenee ko Alioune Ndoye noonu ba 19 yëpp euh, mot ci loolu la ñuy liggéey loolu la ñu président sant loolu la koy defal ñun ñu toog autour de cette euh, de cette table maintenant du ñàkk de temps en temps quelques grincements mais loolu politique la rek je vous remercie. waaw ci tënk ñu ngi nuyu. sunu mbokk journaliste yi di dëggal li nga xam ne moom la ñuy xaar muy sunu coalition Benno Bokk Yaakaar gagné lu ëpp foofu ci ay collectivités territorial muy ay communes ay villes ak départements à travers le pays loolu nag suñ ko waxee du waxu rek campagne électorale daf di yéen ci seen bopp xam ngeen ne lu jëm ci communes yi su ngeen jëlee juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari maire yi nga xam ne ñoom ñooy jeexal seen mandat lu tollook ñeenti téeméer ak juróom benn fukk juróom-ñetti fukk yëpp sunu coalition lañu bokk maire yooyu bilan bu baax la ñu amee te bilan boobu li ko waral mooy alal ji nga xamante ni état mu ngi koy jox collectivité territoriale gouvernement Macky Sall bi mu ñëwee 2012 ba léegi da ko ful ñetti yoon ndax ci 2012 mu ngi tolloon ci ñaar fukki milliards léegi nag ñu ngi jege juróom benn fukki milliards muy 60 milliards alal jooju dañ ko def ay dispensaire ay poste de santé ay maternité ay tali ay forage ay teen ay école médicament loolu yëpp nag tax na nit ñi ci gox yi askan wi gis nañ ne maire yooyu liggéey nañ liggéey bu rafet bilan nag dafa am solo ci élection loolu moo tax ñu am yaakaar waaye sax am yaqin ne écrasante majorité collectivité territoriale yi dana dellu siwaat bennoo ndax bilan bu rafet boobu ñu tegal waaye ma ci teg ndax mënuma bàyyi géejawaay sama dëkk mënuma bàyyi itam banlieue bi ne gannaaw ba ñu amee bilan yu baax booloo gi ñu booloo en tant que ay leader moo xam ñi jiite liste yi wala ñi nga xam jiite wuñ liste yi taxaw ci campagne bi defendre bilan yi waaye surtout wane ay programme yoo xam ne si pertinent tax na ba amuñu benn sikki sàkka ci ne région de Dakar danañu reconquérir l'essentiel pour ne pas dire toutes les collectivités territoriales ci kaawu Ndakaaru nga xam ne ñun géré wuñ ko bu ngeen ko seetloo li changé ci Dakar te baax mooy tali mooy pom yi mooy cet gi te loolu yëpp su ngeen ko seetloo du ville de Dakar ndax tali yi moom pom yi xam ngeen ne programme gouvernement sénégalais la cet gi tamit ma nga tàmbalee keroog ba nga xamante ne ville de Dakar mënatul lam daan liggéey gouvernement bi jëlaat ko ci loxoom kon nag dañu soxla dakaar ñëwaat jouer rôle ba nga xam ne moo ko doon jouer muy rôle dëkk boo xam dafa leer dëkk bu set dëkk culture dëkk bu respecté environnement dëkk boo xam ne àdduna bi dañ koy seetaan loolu pour ñu am ko il faut ñu falaat Ablaye Diouf saar te am nañ ci yaakaar ndax boo xoolee campagne bi ni mu demee ba nga xam ne sunu adversaires yi pour ne pas dire concurrent comme ni ko madame le premier ministre waxee tiit nañu ba naan ñoom boo moytul 22 heures ñu dem <laughs> toogaat ci mairie ba ma ne loolu moom waxu kuy gént la xam nga booy gént nag moom lu la neex nga wax waaye li am solo mooy ñoo am fii ci Dakar le meilleur candidat de par son profil koo xamante ni jàng na ba jàng jotee am expérience collectivité territoriale parce que nekkoon na coordonnateur CAEL muy la cellule d'appui euh, des élus locaux kon am na expérience bi ñëwaat nekk ministre des collectivités territoriale kon xam na lu ñuy wax ñëwaat nekk ministre de la santé ci période bu nga xamante ni Covid la di liggéey ak collectivités territoriales yi ba pare nag nekk nitu jàmm mën a dialogue te Dakar nag fi mu nekk nii dañu soxla dal dañu soxla kuy liggéey ak gouvernement bi dañu soxla kuy liggéey ak partenaires yi waaye soxlawuñu lu jaxasoo soxlawuñu tension soxlawuñu fitna kon nag chance su Dakar ëllëg mooy hôtel Abdoulaye Diouf Sarr xam naa dana leen jaaxal lu tax man mi dëkkul Dakar may insisté ci Dakar. parce que Dakar suñu capital la ñun ñëpp a ko bokk kon ñun ñëpp ñoo war a prêter attention ci Dakar bañ continuer fitna gi nga xamante ni ñu ngi koy utiliser ville de Dakar di ko politiquer te loolu taxul collectivité territoriale jóg li tax collectivité territoriale jóg mooy fexe liggéeyal askan wi ci ay mbir yu nga xamante ni seen dund bés bu nekk la muy lumière muy sécurité muy cet muy santé muy éducation loolu pour mu am nag il faut que ñu am ku bëgg Dakar ku respecte nit ñi ku mun a wax ak gouvernement bi mën a wax ak partenaire bi ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm.